Union Berlin bañ na ba sonn ci diggante équipe bi la di Real Madrid ak ñoom ñoo ñooñee nga xam ne ñoo jege ci almaañ ñëw euh, fàq daanu si sa Santiago Bernabéu waaye ba nu jóg nag bi ñu futbalee lu toll ci juróom ñeen fukk minute ak ñeent danoo faxasu euh, jóg daw euh, génn foofee ca Santiago Bernabéu ndax daanaka ki leen sonal mooy Bellingham mi nga xam ne gars yi quatre-vingt-quatorzième minute la ñëw daal di toroxal gars yi rajaxe kër gi ci benn yollu ngar boo xam ne gars yi balan ciy dikk def leen seen i abonnement yow ko def ba pare ci YouTube bi cëntangërëm ñeel na la yow mi ko defagul def ko léegi nga xam ne bu fekkee tiktok nga ne dabbar ñi waaye supporter bi nga xam ne balaa match bee taxaw wala balaa match bee commencé na ne coow daal di conkan fi nga xam ne mooy nekk buntu Santiago li ko waral mooy yéemu ci stade bi nga xam ne jàpp na ba mu dalee dem ci ay stade ba léegi stade bu mel nii musu koo teg ay gëtam moo taxit teg na ko ay gëtam waaru jommi waaye nag loolu jommilunu li nu jommal mi nga amee ci biir ñax mu tooy mi nga xam ne moo nekk Santiago Bernabéu ñax moomee daanaka ka ko ba mu jaar yoon yoon a passé Bellingham goo nekk anglais gi gars yi football nan lu toll ci juróom ñett juróom ñeent fukki minute ak ñett séngam daanaka boobee bal bi di départ booba juróom ñeent fukki yeeg ñeent matul waaye nag bi mu àgg ci Fede Valverde àgg ci ki nga xam ne daanaka moo nekk Bellingham ba mu koy dóor ca pied droite ba doon ko xëccoo sax daanaka ak football katub Real Madrid bi nga xam ne mooy soslu loolee daanaka fi mu toll nii mujj nag bal ba dal ci tànki ki nga xam ne mooy Bellingham mu ni cabax ca kaay fa la match ba tasaaroo fa la ga jeexe fala la Real Madrid ma ne benn yoon ci benn bal bu njëkk benn bal bu njëkk benn victoire bu njëkk benn match bu njëkk ci yi nga xam ne mooy Ligue des Champions yi benn match bu njëkk boo xam ne tamit ña ngi koy football fële ca Santiago Bernabéu ci Ligue des Champions bi nga xam ne mooy bu ren bi kon ñeent ñeent yi nga xam ne moo mujj juróom ñeent fukk mu ak ñeent ñeent yooyee daanaka du hasard waaye réalité dëgg la Real Madrid def ci diggante gone Allemagne yi kon yeneen information ñi ngi koy togg léegi am match yi nga xam ne mi ngi waaj bu leen fàtte ni nam Nampalys Mendy dana football tey ci match bi nga xam ne lance dana ko football foofee ca France waaye match boobee ñi ngi koy diffusé ci Canal Plus mi nga xam ne moo am exclusivité yooyee match nga xam ne daanaka yi ci gën a baax gën cee tegu yoon moom moomee di Canal Plus moo koy teg jërë ngeen jëf ci kanam yeneen information